wa alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bi tadd bi leen ndokkeel ci xeexu xew mag bi ñu bàyyi muy bisu tabaski di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala jaamu yàlla ci def yépp ak lañ def ci ko jiitu ak li ci topp lépp yàlla na ko yàlla nangul te fulal ñu ko jéggal ñu mbooleem suñuy rëcc-rëcc di ndokkeel bu baax kilifa gu mag gi di ko ziyaara di ñaan sunu boroom yàggal ko ci sunu kanam lool lool te dëgëral ko defal ko tawfiq ba fa mu bëgg yàggale liggéeyub lislaam bi liggéeyub sëriñ bi mu yàggale ko fa te lépp ñu ànd koog ci na mu gën a rafete dinaaw loolu waxtaanu tey wi niñ ko baaxoo defe eh, dañ koy sukkandiku ci waxtaan wi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci bisub julli gi ñu baaxoo woon saa yu defee waxtaan ñu delloosiwaat ko nafaraat ko gën koo dégg dégglu ndax ñu gën koo mën a jariñoo bu ñu fàttalikoo sëriñ bi waxtaan wi tënk na ko ci ñetti tomb tomb bu njëkk bi dafa na soññ ñu góor góorlu ci ak njub bu ñaareel bi mu soññ ñu ñu fonk suñu diine bañ ci am diine mbaa bëgg diine rek waaye ñu fonk suñu diine soññ ñi itam ci ñu góorgóorlu ci fonk suñu taalibe ci ñetti tomb yi la tënk waxtaan wa waxtaan tey wii nag ñu bëgg koo yamale rekk sukkandiku ko ci tomb bi mu jëkkee muy ak njub gi nga xam ne soññ na ci soññee na ci wax ñu góorgóorlu ci waxit ne mooy buntub lépp lu baax ak njub mooy buntub lépp lu baax ginnaaw mooy buntub lépp lu baax nag te nit ku ànd akum xelam lu baax rek lay sàkku fii ci àdduna ak fële ñu jëm kon la nga xam ne mooy buntu lépp lu baax xam ko bu baax a baax te jéem caa góorgóorlu lu war lay doon njub akuk jub ñaari baat la yu jege te lëkkaloo ak njub mooy yoon wi yàlla rëdd ci alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko jaar ca woote ca ñu baax ñi ñëw ginnaaw ñéppit jaar ca yoon woowee di ko wane te di ca woote ba ci sunu ku baax kii nga xam ne moom lañu sunu borom féetaleel moom it mu ñëw xallaat yoon wa gën ko leer leeralaat ko jaar ca jaarale ca ñam àndaloon ñépp bàyyi ko fi mu di tegtal ngir ñi nga xam ñooy ñëw ci ginnaaw bi kon yoon woowu mooy yoonu njub di yoon wi nga xam ne ñi mas a baax ñépp ci àdduna ak ñi baax fii nu toll ak ñi nar a baax ëllëg ñépp ci yoon woowu rek lañuy jaar moo tax bépp jullit bu taxaw ci kanam boroomam di joxe jenn farata ci faratay julli juróom dana ñaan sunu boroom wan ko yoon woow yi gën koo leeral yoon wi te gën ko caa dimbale mu jaar ca ndax mooy yoonu ñi nga xam ne ñépp mooy ñi yàlla baaxe ihdina siraat almustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala daalliin kon ña weesu ña jiitu woon ak ñi fi nekk te nar te ne tey xeñtu lu baax ak ñi nar ñëw ñëpp yoon woow mooy seen yoon wi ñuy jaar te mooy yoonu njub euh, yoon woowu mooy yoon wi alquran di wane di ko leeral inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam mu ne alquran jii day tegtale yoon ya nga xam ne ñoo jub euh, shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan kon mooy yoon wi nga xam ne moom la alquran di wane moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wane wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim ñu baax ñëw ñëpp itam ci yoonu di di di jiite nit ñi ci diine yoon woowu rek lañuy ñuy moom lañuy ñuy wane kon yoon woowu lañuy ñuy tudde ak njub ak jub nag ak jub nag mooy topp yoon woowu dog yoon wa jaar ca te bañ ko wàcc loolu mooy ak jub mooy nekk ci yoonu njub te bañ caa génn loolu kon mooy ak jub ak jub nag buñ delloo ci alquranul karim sunu boroom da koy leeral di wax ne mooy maanaam ak njub ña nekk ci ak njub ñi nekk ci ak njub te kon mooy ñi nga xam ñoo jub mooy ñi ragal yàlla bi waxee ne alif laam miim zalika kitaabu laa rayb fiihi hudan lil muttaqin la wax alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnahum yunfiquun baag ci ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun mu ne alquran ji yoonu njub la mooy yoonu njub mooy wane yoonu njub wi nga xam ne ña ca jaar mooy ña ragal yàlla ña ragal yàlla nga xam ne na mooy ña nga xam ne ñoo gëm lañu leen di wax ci dëgg te gisuñu ko mu jëmmi suñu boroom ba jëmmi suñu boroom ji ak lay xew ëllëg ak ñam muy doxal ci diggante mu jaam ñi te ñu te gisuñu leen أكبر أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن suñu على الفراغ suñu boroom xamal nañu ne njub gi alquran di wane ña ca nekk mooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy gëm li ñu leen di wax ci xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ko jot di leen ko wax ci ay xabaar yoo xam ne euh, mënuñu ko xamal seen bopp ci lu ñu wax leen ko tàmbalee ko ci jëmmi suñu boroom ak ñim doxale digganteem ak jaam ñi malaaka yi ak lay xew ëllëg ak la ca asamaan ak ya demee noona yépp ñu gëm ko ni ñu leen koy waxe di julli julli juróom di joxe ci leen yàlla sëgal gëm li nga xam ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak li wàcc ci ña ko jiitu woon ci ay yonent muy téere yi jóge ci asamaan am lu leen wóor ci ne yowmal xiyaam dana ñëw te su boobaa la lañ wax ne dana fay xew lépp dëgg la te kenn ku nekk su boobaa des na ko fay jëfam euh, ñu am leen wóor ci loolu seen dund gépp ñu ciy bàyyi xel euh, xabaar boobu di ca dox mu ne ñooñu kon ñoo nekk ci njub te ñooñu ñooy ñi nga xam ñoo texe euh, kon ragal yàlla mooy ak mooy ak jub ragal yàlla mooy bàyyi topp ndigal ak bàyyi tere moo xam ndigal yi feeñ la wala yi nëbbu ndigal yi feeñ mooy yi nga xam cër yi dañ koy jëfe nit ñi mën koo seede yi nag mooy yi nga xam ne xol a koy def yàlla rek mën koo seede mook boroom xol bi tere it moo xam tere yu feeñ la nit ki yi nga xam ne bu ko nit doon def ñu mën koo gis ak yi nga xam ne tere yu nëbbu la mooy li nit ki mën a jëfe cib xolam te muy lu yàllay tere loola kon marché bàyyi tere yépp tere yi nëbbu ak yi feeñ jëfe ndigal yi nëbbu ak yi feeñ loolu mooy ragal yàlla te kon loolu moo di ak njub njub googu nag yoon wi koy wane yoonu njub wenn yoon la rek mooy wi yàlla rëdd keneen ku dul yàlla mënta rëdd yoonu njub rëdd wu weneen keneen rëdd rek tudde ko yoon loola fa yàlla jubut qu innal hude hudallah qu inna hudallahi huwal hude suñu boroom nee na njub e, njub mooy yoonu yàlla waxaat ne yoonu yàlla mooy yoon wi jub kon yoonu yàlla rek mooy yoon wi jub weneen yoon wudul moom mënta jub e, kon loolu suñ boroom moo ko moo ko moo ko leeral njubit ak jubit te mooy xam ak njub te di ca jaar ndimbalul sunu boroom la sunu boroom mooy taw ña ko soob xamal leen ak njub nanguloo leen ko xiir leen ci ñu di ko ñu di ko topp ki nga xam ne nag moo war a wane yoonu jub di kilifa gi ak taxawaay bu mën a taxawee kilif kilifteef gu mën a taxawee rek ci xeeti kilifteef yi warteefam mooy rek wane yoon njub ak woote ca ak soññee ca ak digle lu baax ak tere lu bon ak jàngale ak yare loolo bu ko defee moom jaanam wàcc na ñam koy jamale ñañ koy ñam koy def ca ñoom nag buñ jaaree ca yoon wa ah, ñooy jariñu waaye buñ ko wàccee itam ñoom seen bopp lañ koy def waaye ka leen war a teg yoonu jub moom bu wanee yoon wa rek jaanam wàcc na yàllaay jubal moom yàllaay dimbale nit mu xam yoonu njub moo koy dimbale mu nangu ko moo koy dimbale itam mu nangu koo topp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wax na ko ne e, doo doo du caagee ne ku la soob rek ku la koo bëgg mu jaar ci yoonu njub rek mu jaar ca innaka laa tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha doon ne ñi nga bëgg ñi nga yéene njub ñépp rek dañ koy daal di am waaye yàlla ci boppam mooy tànn ci ay jaamam ñum nam ma jubal eh, may leen ko waaye ñam ñam namut ci ñoom loola duñ ko mën a am waaye nag yow li lii li sawatee mooy ngay tegtale yoonu njub innaka la tahdi ila siraatul mustaqim mooy di wane yoonu jub di ca woote di ca soññee te nekk ca ah, jub nag buñ ko dee xool ci geneen wet day doon ñaari xeeti njub mooy jub ci sunu digganteek sunu boroom ak jub ci sunu digganteeg jaam ñi jub ci sunu digganteeg sunu boroom ci buñ ko bëggee tënk moo ñuy topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem te loolu mooy ragal yàlla waaye di sant ay xéewalam di muñ ay nattoom di gërëmloo ay dogalam di sàmm àqam ci ay jaamam ak li mu bind kon loolu ci tënk mooy njub ci sunu digganteeg sunu boroom tënk ci ay ndigalam di ko jëfe kem kàttan bàyyi ay tereem xéewal yi nuy xéewal te xamunu nu mu toll munuñu koo takk munuñu ko wàññi ñi di ko sant kem kàttan natt yi muy indi it di ko teg tege itam ñu di ko muñ te di ko gërëmloo tey rafet njort ci moom te di ko ñaanit mu teggil ñu ko tey sabablu luñ cey génne waaye li muy dogalit mu di ñu neex moo xam ci suñu bopp la ko dogal moo xam ci ñeneen di ko gërëmloo di ko di ko di ko nangu ci suñu xol waaye di sàmm àqam itam ci jaam ci jaam ñi àq yàlla ci ay jaamam mooy ne jaam ñépp moom moo leen moom kon nit ku nekk war ngaa ragal yàlla ci ay jaamam wara a bañ a jalgate aqi jaam ñi ndax boo jalgate aqi jaam ñi tooñ nga yàlla ndax jaam ñi yàllaa leen moom kon bañ a tooñ nit bañ a tooñ yàlla yi loolu bokk na ci sàmm ak yàlla ci ñoom euh, bokk na ci itam di leen yërëm ak di leen ñewant euh, bokk na ci itam euh, di leen yéene aw yiw te di leen ko sàkkul kem kàttan li ko sëriñ bi waxe koonu muhibbina alxuyuura li jamia xalqil musawiri allazi lahul jumoo nangeen ngeen yéene aw yiw te di ko bëggal mbooleem bindee fi yàlla yi ndax bindee fi yépp yàlla leen bind ku nekk nam mel moo ko ko melal la muy def moo ko ca xiir te ñépp it moo leen moom kon sàmmal ak yàlla ñépp rek nga yéene leen aw yiw te ku nekk nag foo ko na ko yàlla def nga xam ne kon noonu la ko def kon loolu mooy sàmm àqi njub ci suñu diggante ak suñu boroom njub ci suñu diggante suñu borom nag mooy kenn ku nekk la la ci sa diggante moom nga taxaw ca te la ko yàlla jox ci àq itam nga bañ koo jalgate loolu rek ci gàttal mooy njub ci suñu diggante ak suñu moroom yi jaam kon bunt bu yaatu la bu bu bu bu mënee sa wax lu baree baree bari waaye e, kon ñu doyloo gun lii rek nafare ko ci bind bi nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ci bisu julli gi te muy lu gàtt waaye lu tënk loo xam ne ëmb na lépp lu mat a wax ak lépp lu mat a xam ëmb na ko kon yàlla nu yàlla xiir ci njub te boole ci ña nga xam ne bu ñu déggee ay wax dañuy topp la ci gën a rafet wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 Resulullah الحمد لله الذي أمر فوعد ونهى فأوعد فصارع أولو النهى إلى امتثال أمره واجتناب ما عنه نهى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من هدى إلى الله تبارك وتعالى وأرشد وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الدار الآخرة الباقية على هذه الدار الفانية وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي جازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا حذركم من أعدائكم وأحدى أحدائكم نفوسكم التي بين جنوبكم واعلموا أن الدنيا قصيرة الأمد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فاصرفوا هممكم عن زهرتها التي كالعدم ووجهوها إلى مولاكم الذي هو أولى بكم تفوزوا بالنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه وتنجو من العذاب المقيم الذي أمد للمعرضين عنه وعن أصفيائه الحمد لله الذي هدانا بالكتاب والسنة وأخذ علينا ميثاق الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه نشهد أن لا إله إلا الله والذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ بعث فينا, فينا نبيا أميا أمينا أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل ووضحت علامة فنائها فلا تحتاج إلى برهان ولا دليل فالأحمق من ملكته فاستغل بما فيها من حقير وجليل والعاقل من أعرض عنها فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت وإذا بات ظن أنه لا يقيل يواظب على سنته ويلازم ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما ساء بالولائم ويترك ما هم وساء في هذه الأزمنة من المناكر عملا بمقتضى قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxira wa bi qawlihi taala wa man aataakum rasuulu faxuduuhu wa man nahaakum anhu fantahuu waffaqana llaaha wa iyyaakum fiimaa raxxabakum fiihi nabiyyunaa al-mustafaa al-kariim وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 آمين ربنا ولك الحمد الله أكبر الله صبح تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسانها في جنة عالية لا تسمع فيها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 assalaamu aleykum. assalaamu. Amen